Allah yaa ngi ci Macky yaa njaboot gi Allah yaa ci naka gisuñu ko sa wet bi ngay def discours de la nation Allah yaa ci am nga une minute sa temps am nga lii merci beaucoup ah Macky dama laa mel ne ku gis nga def ci discours de la à nation noonu ba tàggatoo <laughs> Allah yaa sa yanara sa hasta la vista, ne retourne pas, que Dieu t'accompagne, taille na la yàlla teg ci yoonu jàmm foo jublu yàlla na yàlla jublu ay waay Macky Sall ay waay dund ba dégg la maa ngi dem jërëjëf jërëjëf foo jublu yàlla na fa yiw yàlla jublu muy ma Macky yow mun a woon a may Amadou Ba mu wax dañuy dernier discours à la nation yow tamit nag ah mënoon nga koo mosal de xelam nekkoon nag yi daal taxaw fa lay wax <laughs> waay mënoon nga koo bàyyi comme fan yi moom nga bàyyi mooy zino giré mooy dagg mooy dem mooy wax wax li nga def mënoon nga koo bàyyi mu def dernier discours bi moom rek la fi am de daa am leneen lu mu wax wala nga bàyyi ko feeg la kii nangam fan yi ñu organiser ko yow tamit mu am lu mu wax benn yoon taxaw wax discours à la nation sax nag wallaay aji Macky Sall moo xorom oui ma finalement kon mujjee wax wolof waxoo wolof am nga problème sama ñoom yaay ak sama ñoom mànd bu ma leen tekkile li nga wax ba sos ay Macky jóom nga mun a ngaa wax wolof de <laughs> wallaay aji mënoon ngaa wax wolof ñi ma seetaan ñépp gis ma foofu waxi wolof waaye tey ngay am problème de sama maam lay njëkka toogal wax ko li nga nekk woon ci réew mi ak li nga wax na ko mag nee na tegu leen fenn lijjantiwu leen yéen ñi ko wotee loon lu daal loo xam ci wax ju ñaaw dinaa la ko sosal tey sama yaay déggul français bu ko defee moom ba ma sosal la bu bàyyi la mënoon ngaa wax wolof juum nga balaa <laughs> yaa si Macky Sall gone gii moo xoromu rek ajo